feebar waaw dañuy def anam mu ngi ci biir fay dem gox bu bëri histoire la anam mu ngi ci biir dugal yaa ko bàyyi dugal ci bagage foofu li yoon la di yoon ah waaw mu ngi nii yow yow yaay Matou Ndiaye waaw maa la lu tax nga jël bagage bi jàmbur nga sànni ko fay ma lu tax fay la rek nga sànni bagage am maa tey yaa tey yow yaa kaani sax waaw yow waaw yow Mendy yow yow yow da ngaa màndi wala da ngaa def wala pante laa toŋa ma ngi sànni bagage jàng fii. yow li ci sa yoon si ma kër bi. eh xoolal xaw ma looy def ak sa kanam bii noonu coxtu na ma laa ko xoolal bagage yi jàng ñu ngi ko sànni ndax ñu ngi ko sànni. ma ne bu kii ma seebu kaar. mën naa seetlu ko bu mbay kii mooy papa Sakay Mbaye. Ah, du doon nga wax da ngay dem police. waaw dem na police. ah mu dem police. dem na police nga xool. ah dama dama man dama dem dama woo. كل بيت انا سمكه كان ممكن مسكر لا ما كان سمكه ايه ايه تقول سمكه ايه ايه بالفاتح من تمن خالص انا بتخلص من فوق يا عمر يا عمر يا عمر اسمع طب هو بوليس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا di nga tas di kese di yoon. amoo déglu ma yow déglu ma yow déglu ma yow. xaw ma looy def ak sa kanam gi nu ko sonn ma laaj. ma ne ma ne ma xaas. wala nga delloo fi kër Baba bi tax. ma ne lan. bëri ma xaas. eh dama ni. man maa chef de quartier bi la wax. waaw yow yaay déglu. su ma kër la déglul. lu ma déglu. sa kër man maa koy seet. yaa ko seet. man maa chef koñ ma maa chef sa kër. yaa ko moo chef déglul laa wax. ak sa ak sa kanam gi nga dàll ba naa boo naa boo naa yow yow xoolal. eh jël ah. ah, eh, sa bopp dugal ci biir. dama rek jël sa bopp dugal ci biir. lu tax du dugg. ah. dama ne. waaw dafa naan waaw du naan sa kanam. doo ma ne lan yow daanaka dugg na fi moom ci yow yoon. dama ne bu ñu dee dama ne bu dee la am la wax. maa tey ñoom ñu ngi lay fay yaa tey. ñaatee. ñaatee nga la. waaw moom mi ngi lay fay nga bëgg ko bëgg ko gën sax na ko fay. waaw ko dama ko yore trois mois te fa nekk dama hmm. feebaroon. ñeenti weer la. Ah. waaw gi te hmm. ah. Ah. feebar. ah déet. feebar yow ma danga koy fay ba mu nag. mën na génn sa bagage. ñetti weer ba combien. ñii ñii ñii ñeenti. ñeenti weer. ñeenti weer kon xam nga loolu dafa. kaay xoolal. xoolal Mari. dafa naan kaay waxtaan rek. duudu kaay ñu waxtaan. duuma gannaaw. amal na la arrière. ni la. arrière ñetti weer. waaw li si ne xoolal muñal ko. duuma kenn moom. waaye muñ ko waaye. duuma kenn moom waaye muñal ko. duuma waaye déglul déglul déglul mari mari mari déglul wax nga dëgg ndax ginnaaw amal na la ah yaa am dëgg nag léegi li ma bëgg mooy nga muñal ko joueur bi dee bu la fayal man danaa la fayal. déedéet demeeri si biti. waaw déet déet ah déet man nag du ma dem si biti maay chef de quartier bi. ah du ma dem nag si biti. gënal si si la du ma dem si biti. gënal yaa wax loolu. waaw man man. maa mën a génn sa kër. di nga génne. Ah, du ma génn. génneel li ma fi dugal. du ma fi génne. da nga génn la. ndax li ma fi dugal moom mooy werante bi nga xam ne kii tamit leen war a àtte. si ma yaanu. Ah, da nga ñëw ñëw sax sama kër. du ma ñëw. police nee na bagage bi yéen a waroon na ñëw sama kër man maay chef de quartier bi waaye nag bëgg jàmm ak dëkkandoo dëkkandoo bu baax moom moo tax ma ñëw fii ànd ak moom ñëw ñëw ba sa kër. su ma yaay dimbali ko rek. déedéet ah yaa def noonu. dama dimbal dama dimbal. bagage lu ci manqué di nga ko fay. xaaral ma dem wooyu police léegi. demal léegi léegi njëriñ la xaaral ma ñëw. lu ci manqué Din bakayım. Bak ağzım ne çabuk. Din bakayım. Demeli. Demeli polis. Demeli polis. Demeli öyle. Onu silahı polis kesin. Demeli kalmın ya. Ne bakı be. Allah ya. Demeli. Mangu da. Mangu da. Demeli. Wow. Demeli ya karmen man demeli. Demeli. Mila demeli. Demeli باليش باليش ما انت عارفي ما عندي كان جابولا جابولا بيخرج تعالي بسميك مريض بسميك العزيز واو دامنا دامنا دامنا معنا بنا ما يبغوا ده بنا ما يبغوا ده عمري ما عمري ما يتعبوا عمري ما يتعبوا يا جماعه Nära musik alla med det kake. Shima ma. Daya har me to shima ne.